salaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu leen ziar leen fàttali yéen ak seen canal Galsen Tube ci seen programme comment a de l'argent sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis ci YouTube koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof tey bi nag direct la YouTube YouTube maanaam luy loolu mooy benn vidéo di daw direct comme ni ngeen ko gisee nii muy euh, chaîne Africa News bi muy dawal direct nii mo bay jël direct bi reprendre ko ci sama canal te mu nekk teg teg comme ni mu koy dawale vidéo tey bi ci loolu lay ñëw loolu ni ñu koy defee simple na OBS studio la muy deuxième vidéo OBS studio wanoon nañ leen keroog ni ngay defee direct comme sa écran boo di fiy génn nga def ko direct parce que moo direct YouTube YouTube bi sorante wuñu am na ñaari façon la yu ñu ko mën defee mooy benn mën nga def plein écran rek def capture bàyyi sa ordinateur noonu ba direct bi jeex mais bu dee da nga bëgg def direct boo xam da nga bëgg direct bi jàll di filmer benn canal YouTube mais du nekk sa ordinateur kon di manipuler sa di nekk di def ay recherche ak yooyu loolu lañ leen di wan euh, nan lañ koy loolu c'est très simple euh, mais nag avant ñuy wax na lañ koy defee dina am benn précision bu ñuy def euh, reprendre direct jaamur te tàggoo ko nag c'est pas autorisé loolu tamit voilà man dama leen di woon rek ni ñu koy defee waaye nag kenn ku ne sa responsabilité nag ka ngay direct ba ngay reprendre nga fexe ba am autorisation borom waaw ah, parce loolu mooy yoon parce que affaire YouTube la direct bi ngay def soo defee direct bu jeexee day nekk vidéo nekk ci sa loolu tam nga bàyyi ci xel bu baax voilà te booy def direct tamit nga bàyyi xel ni euh, direct bi. son bi nga bi dama couper son bi pour comme li may wax ni bañ a altérer li may wax mais booy def direct vidéo bi ngay def direct son moo war di daw ci ordinateur moom dong sinon bu amee beneen son buy daw ci ordinateur bi logiciel seet da koy jëlaale voilà comme munoo def direct direct bi daw son am di daw parce que son système bi lay enregistré en même temps nga jàppale nag nga dugg ci beneen canal jàpp fa vidéo di seet di seetaan vidéo son boobu day jaar mën na jàllaale ci direct bi nga bàyyi ci xel loolu léegi li ngay def mooy. da ngay ñëw avant tout OBS boo ñëwee OBS xam nga ñaari avant ñu leen wax loolu sama ñëw ñaari navigateur laa ubbi muy mii maa ngi fii Google Google euh, xam def ko nii Chrome maa ngi ni Google Google mi ngi nii mais connecté wu fi parce que Google bi fii laa war a defee direct bi fii laa ko war a léegi dama ñëw beneen navigateur Vivaldi euh, euh, astafurlah Brave navigateur Brave la. fi laa war a ñëw euh, def fi li nga xamante ni mooy euh, direct mooy direct bi bii nii fi laa ko reprendre mais fii laa war a ubbee bu ko defee du al doom du altéré nga xam ne après su may gis direct bi fii laay ubbi di seetaan te fekk direct bi ngi daw ci beneen navigateur voilà lool mooy mooy foofu la astuce bi nekk voilà ngeen xamee ko noonu voilà léegi li ngay def mooy comme ni nga ko waxee da ngay ñëw fii nga xamante ni mooy euh, OBS ngay ubbi boo ubbee OBS par defoo nii lay mel léegi-léegi tam mën nga ko bii mu mel nii waaw toujours ñuy leeral rek mën nga ko ubbi gis ñaari ecran mais benn la rek benn écran bi ñaari écran benn la benn bi aperçu la benn bi programme bi mais mën nga fii nga koy defee mode studio la gis nga voilà ak mode comme TV ak mode studio jeex na léegi boo ñëwee fii li ngay njëkk a def mooy da ngay ñëw dem paramètre ngay dem boo demee paramètre nga cliquer ko boo cliquer paramètre li ngay njëkk a def mooy nga ñëw streaming ak flux nga cliquer nga vérifier ba xam fii YouTube YouTube gaming la nekk parce que fa war a nekk serveur nga vérifier ba xam primary YouTube and just serveur la nekk parce que fa war a nekk serveur yu bëri la gis nga serveur bii la war a nekk fii itam système yu bëri yu canal site yu bëri la mais YouTube gaming la war a nekk nga vérifier lii information yi nga vérifier ba mu nga ñëw fii nga def récupérer la clé de streaming nga cliquer fii boo cliquer fii clé streaming gis nga bu ubbeekoo ci Google léegi fii mooy fi doon defee streaming normal ba léegi dañ fi def streaming normal waane YouTube léegi dafa créé comme ni mu si biir YouTube studio bi comme moo war a remplacer YouTube classique YouTube studio bi fa la def liñ naan salle contrôle direct bu bees fii buñ neexee ñuy am fii rek def direct bi ñëw fii def suñuy réglage yi ngi fii lay feeñ ñu ñëw fii def suñuy réglage maanaam gis nga sa logo kanaal bi lay génne header kii euh, bannière kanaal bi ci kaw illustration bi par défaut ji nga moom lay def mën nañ ñëw fii dugal suñu description dugal ndax dañ koy programme programme bi dugal catégorie bi confidentialité euh, ñu def privé dugal fi information ñu war a dugal lépp ñëw fii def afficher euh, clé bi copier ko après dem ci ops bu defar activer ko direct bi ñëw di feeñ fii mais na dañuy dañu préféré dem ci salle de contrôle bu bees bi fa la ñu bëgg a defee direct mooy comme wanoon naa leen ko bu ñëwee fii dañoo dem salle de bu bees bi mais foofu ak fi ñoo yem fii mooy version bu njëkk bi foofay version bu bees bi loolu donc mooy différence bi voilà nga bàyyi xel tam clé bi dinañ la ko woon fële fële salle bu bees bi clé bi YouTube def na nga mën koo copier sans nga génnee ko fii nag il faut nga afficher copier clé bi boobu nag moo leen koy wax ngeen bàyyi ci xel bu dee da ngay def loo xam ne lii daa war a nga bàyyi xel sa clé bi bu ko nit amee mën nay def direct ci sa canal nga yëg ko nga bañ ko yëg voilà léegi dañ ñëw fii accéder salle contrôle direct bu salle contrôle direct bi ubbee ko ñëw fii xool vérifier ba xam ci streaming lañ nekk waaw nekkuñu webcam nekkuñu gestion nekkuñu euh, diffuser maintenant ak yooyu fii la war a nekk streaming ci kaw nga bàyyi ko xel bu ko defee gis nga fii la vidéo bi di feeñ te fii la ñu war a def information yi nga xam ne moo concerné direct yi nga xam nii moo gën a simple feeñ jóge fu weex fi fii moo gën a simple ba pare moo gën a baax ci ay bët su YouTube da ko def léegi mu ñuul nii parce que euh, lii dafa baax ci écran mooy tax euh, du gaaw a yàq say bët léegi nag streaming bi toujours li ngay njëkk def boo ko sotee itam après day rouge du nangoo dem boo cliquer fii dalay rouge fii na la nga ñëw mooy da ngay choisir titre bi parce comme bu direct bi jeexee vidéo lay nekk te vidéo bi direct bi dafa war a am titre nga choisir titre bi par ñu ne ñu def rek GT muy Galsen Tube rek voilà parce que comme exemple la ñu joxe rek te boo jógee foofu nga ñëw fii direct bi euh, enregistrement bi da nga ko bëgg def direct mais mu nekk vidéo publique kenn du ko gis ba nga xam ne bu jeexee mu soog a nekk vidéo ci sa kanaal wala da nga ko bëgg ñëpp gisandoo ko nga def nga choisir man privé laa koy parce que. Galsen Tube bi sinon dañuy ñi si abonné yëpp dañuy gis maa ngi def direct bu ñu ñëwee xool da leen di jaaxal ñu gis Africa News moo tax ma koy def privé mu ko defee privé ba pare c'est très simple fii ngay ñëw nga cliquer créer un flux ci suuf bu cliquer créer un flux léegi nag contrôle streaming bi daal di commencé génn mu ngi généré wu ñu xaar waaw mu pare mu pare fii lay ñu afficher données yi ak clé bi ñu mën ko copier voilà gis nga léegi officiel nañ données yi ñu soxla pour def léegi li nga xam ne mooy direct bi fii bu fekkee sa connexion dafa faible trop mun nga choisir fii option bi suuf bu dee sa connexion tane na wala mu am doole wala mu tane moo xam mun nga choisir fii bu dee connexion bu am am doole nga yor na connexion yu gaaw yooyu bu am doole début bu baax mën nga choisir bi ci kaw mais ñun fii la ñuy def pour mesure de sécurité parce que connexion bi ñu bi ñu bi ñu am dafa digg dóomu nga ñëw fii gis nga fële ma la doon wax fu njëkk fi YouTube lay dafay def dangay ngay afficher bi copie xam nga li boo ko copier ay ay tomb rek lay nekk il faut nga afficher clé pour copier ko fii ngay cliquer pour afficher ko ñi nga bu bees bi YouTube da lay defal option nga mën ko copier sans nga afficher nga xam ne kenn doo du fa du feeñ ak risque bi mën am mu bañ bu feeñ ak bañ a feeñ dootul am posé tul léegi fii ngay ñëw nga def copier voilà boo defee copier léegi nga daal di dem. ci OBS boo ñëwee ci OBS bii fi nekkoon tomb bii ngay scalé la woon waaw duñ ko affiché nag ñu supprimer ko boo ko supprimer nga ñëw nga def clic droit coller paste coller coller dañ fi clé bu bees bi bu ñu coller clé clé bu bees bi léegi lan la ñuy def mooy dañ koy appliquer appliquer nañ clé bu bees bi léegi nag ñu ñëw fii nga xam ne mooy audio bu ñu ojo audio lan la ñuy def vérifier ba xam périphérique ban moo choisir pour enregistrer parce que fii dafa am solo tam pour nga xam fan ngay en li ban sa enregistrement ban ojo moo ciy dugg audio par défaut la bu ñu cliquer fii gis nga daf lay nga désactiver ko wala nga def par défaut mooy ordinateur bi li ciy wax daal mooy jàll ci direct bi kon da ngay fexe nag ba sa vidéo direct bi dong di wax ci sa ordinateur waaw léegi fii bu doon casque laag bu doon yeneen la mais par défaut ngay def mooy nekk système bi waaw nga def par défaut voilà audio du bureau bu la neexee nga ñëw fi tamit nga ñaar yi nga def par défaut nga bàyyi audio auxiliaire bu doon da nga branché ay micro yooyu comme su ma neexoon tey ma cliquer euh, par exemple si su doon direct bi may def télé bi di jàll direct mais ñiy seetaan direct bi en même temps ñuy seetaan direct ma bëgg di leen commenter te ñu déggaale son wu direct déggaale sama kàddu mun naa ñëw ojo auxiliaire 2 bi ma sélectionné sama casque bi muy Microsoft si casque 3 Microsoft live chat bi su ma ko choisiroon mooy micro bi nga xam ne moom laa tax di waxee nii ce qui fait en même temps ñuy seetaan direct mën naay waxaale mais comme bëgguma def loolu dañ koy bàyyi désactivé waaw parce que ojo direct bi rek lañ bëgg muy jàll waaw audio bi fii noonu lañ koy réglé ngeen xam ko léegi après nga ñëw fii def appliqué ñëw fii def enregistré ok enregistré wu na léegi comme enregistré wu nag léegi ñi nga capture moo nekk fii moo tax ñi nga muy capturer li nga xam ne mooy fii page bi ñu nekk lay capturer parce que mode capture la nekk mode capture bi bu ñu neexee ñëw clic droit ñëw ba fii ñu def supprimer def fii ok li nga capture amatu fi dara amatu fi moo tax mu ñuul nii dara génnatul voilà léegi ñu ñëw fii ñu cliquer plus ci suuf fii mooy dañoo bëgg a yokk dara lan lañu bëgg yokk capture fenêtre lañ bëgg a yokk yokkuñu capture écran tey mais capture fenêtre la def ñu cliquer capture fenêtre fii mun nga ko tuddee nu la neex bu la neex nga bàyyi par défaut bu la def capture yu bëri bëggu leen utal ay xàmmeekaay enregistré leen pour bu beneen yoon boo ñëwee tax di def bu dee site bi par exemple direct bi ngay def ci Africa Africa News bi ak kii bu canal bu munti nekk bu dee dafa bëri looy reprendre di ko nga enregistré ko tuddee ko noonu xam ne heure boo ñëwee rek moom ngay utiliser nga ñëw fii def ok boo defee ok tableau bi la la indil lu mu def streaming en direct YouTube la détecté mooy ban mooy page bi la détecté par défaut voilà léegi ñun dañ koy sélectionné def nii sélectionné Brave Africa News ba gis nga gis nga euh, kii Brave bi beneen euh, kii la navigateur ci lañu ubbi Africa News bi waaye bul fàtte nag audio bii da koy dindi ci après parce que boo ko dindiwul sa direct bi doon wax voilà léegi dañuy ñëw OBS fii ñu bind fenêtre te Google bi nekk par défaut te Google bi di nga YouTube bi lañ fa connecté wu moo tax mooy génn dañuy ñëw ñu cliqué ko boo ko cliqué navigateur yi nga ubbi sa ordinateur yépp la fiy indi defal la ko fi liste yan navigateur la ñuy indil ñaar lañu ubbi mooy Google Chrome ak Brave lañu ñu ubbi voilà moo tax defal dañu fi jig nga brave mi ngi nii Africa News lañ ci jàpp Google Chrome streaming en direct lañ ci jàpp YouTube léegi ñu choisir brave bii bu choisir brave gis nga liy daw ci navigateur brave moo ñëw fii pour nga xam du capture ecran ñu indi Google indi gis nga xam nga suñu Google mi ngi nii lu euh, kii moo fi moo fi nekk streaming bee fi nekk mais gis nga capture bi brave la la def te brave ji nga ubbeeku fi voilà nga ñëw fii nga def ok. léegi brave moo ubbeeku fii léegi nag am na lu des lii direct bi lii la concerné muy lii ba fii te dañ koo war a nag di taawee di ajusté ba mu fees fii nga xam ne mooy rëdd bu rouge bu wër bii loolu la war a demee waaw sinon page bi yëpp yëpp yëpp mooy nekk en direct suñu suñu canal YouTube waaw direct bi lii yëpp lay génnee direct donte bonul sax moom parce que nit ñi dañu ko mën a seetaan mais dañoo bëgg mu nekk teg teg comme kanaal bi dawal loolu nan ngay def da ngay téye shift bouton bi nekk shift sa ordinateur moom ngay téye nga sa benn baaram nga appuyer ko soo ko appuyer léegi li ngay def mooy di pousse affaire yi di régler voilà loolu noo koy defee par exemple fii ngay téye nga xëcc di xëcc ba mu egg fi nga ko bëgge dugg na tuuti nga ñëw côté bii nga xëcc ba mu sës tamit yegg na fii nga ñëw ci suuf fii tam li ngay xëcc mais ba léegi yaa ngi téye bouton shift bi appuyé sinon li doo ko mën def nga xëcc di xëcc di xëcc di xëcc ba fii yem ci cat bi ni nga ko bëggee nga ñëw ci kaw même chose nga xëcc ko gis nga limité na nga bàyyi parce que fii écran mayu nga continuer voilà gis nga léegi ñu xëccaat ko mu dem ba ci kaw voilà ñu soog a yéegal écran bi gis nga voilà ëpp na tuuti léegi ñu wàcce waat nii téye ba la contrôle ba léegi wàcce waat tuuti xool ëpp na tuuti ba léegi parce que lii moom ay technique la yoo xam ne ay pexe yooyu def pour def ko la nekkul loo xam ni officiellement dañ koo créé mu mën a nekk ñëw jàngale ko nga xam ko non affaire la yoo xam ne boo nekkee ci logiciel yi après yaay ne man say di def say manipulation ba trouve ay solution ci ay problème yoo am pour def benn affaire wala noonu la léegi ñu wàccaat tuuti wàññiwaat ko tuuti voilà part tuuti rek dangay ngay ajuster voilà buñ defee nii xam nga gauche ak droite tolloo na mais ci kaw ci suuf moo des fii bu yemee ni ñu xool ci kaw ba xam ni mu ëpp noonu ci kaw li mu ëpp bëriwul amul solo voilà léegi foofu baax na léegi ñu ñëw fii xëcc ko tullu bande bu weex mu ndaw boobu dañ voilà léegi gis nga ni ñu ko deferee nii daal gis nga yaakaar nañ baax na voilà gis nga nii léegi yaakaar nañ ni muy génne nii ak ni muy génnee fii ci brave bi ñoo bokk gis nga ñoo bokk voilà te boo tegee ni gis nga rëdd bu rouge bi après boo tegee xam day dem moo tax suñu direct rëdd bu rouge du ci génn ce qui fait que direct day normal léegi li ngay def mooy li ci des nga ñëw commencer le streaming nga cliquer commencer le streaming boo ko cliquer ñu nga comme bind na arrêté rek kon streaming mu ngi dem léegi lu ñuy def boo génnee ñu ngi ci site bi nii léegi nga ñëw dem Google xool xool point bi point bu verte rek affaire bi jàpp na logiciel bi Google bi YouTube détecté na logiciel bi mi ngi koy léegi installé pour mu ñëw commencer daw direct léegi ñu xaar. loolu mën na tardé quelques secondes ça dépend ci gaawaayu connexion bi voilà daa mu ngi dem voilà parce que li yëpp ñu nekk ci réglage nit ñi duñ ko gisagum voilà gis nga mu ngi dem jis nga mi ngi jàll direct suñu canal teg teg léegi mais lii nit ñi duñ ko gisagum fii ak cliqué wuñ fi passé au direct bii buñ ko cliqué wul léegi lan lañu war a def suñu son lañu war a dem régler parce que dañ ko bloqué woon gis nga ñu dem régler ko dindi son bi voilà voilà léegi li ñuy def ñëw fii def passer au direct waaw mi koy rechercher pour dugal direct bi léegi gis nga def na rouge rek mooy tekk flux bi mi ngi dem waaw bu rouge flux bi mi ngi dem pour boo ko bëggutul nga mën ko dagg la waaw gis nga voilà léegi fu mu nekk ni yow heure bii ma koy def nii nga xam ni boo xoolee fii ci suuf ji ngaa ngi ne 3 heures 23 moo jot yow soo doon seetaan Galsen Tube tey ma su ma defuloon vidéo privé ngay seetaan Galsen Tube teg teg lii ngay gis fii ngay gis muy daw direct ah, Africa News ngay gis muy daw direct ci Galsen Tube voilà noonu lay deme léegi direct YouTube YouTube nii lañ koy defee voilà. waaw soxlawul ñu koy bàyyi fi muy daw lu gudd nag parce que dañ leen démonstration la woon rek kon euh, maa ngi leen sant di leen gërëm ci seetaan bi nga doon seetaan euh, di leen jox daje euh, ba ci vidéo bi di ñëw di la demander su fekkee abonné ko c'est très nga cliquer ci lii nga xamante ne mooy bouton bu rouge mu ne suuf bi te mel nii ñu bind ci s'abonner boo ci cliquer di nga abonné boo paree close notification yi mooy tax vidéo yi ñuy après nga mën ko jot. Hmm. kon loolu moo nekkoon vidéo tey ñu leen sant di leen gërëm jox daje ci vidéo bi di ñëw incha allah rek jërëjëf.